si téeméeri test ak fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo si positif bon donc ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaar yi ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fuñ ko jële ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañu wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère la santé et de sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñi ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi ci ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ñu yëgal leen tam ne démb comité national de gestion des épidémies mooy kuréel gi xamante ne moom moo yor xeexu Covid 19 bi daje nañ démb ñu tënk ñaar. bu njëkk bi ñu ne cas communautaire yi mi ngi bëgg bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon ndëg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi ñu ngi leen di ñaan ku nekk nga am taxawaay pour cas communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawe beneen bi commité boobu jàpp mooy si wàllu transfertu dépôt yi mooy ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu war leen mën a indi denc leen si seen réew ñu ne jàngoro ji fi mu toll léegi ak wàll bi ni mu gaawee te koor yooyu bu ñu ñëwee niñ leen di téye xamuñ ndax dana mucc ayib am ndeet comité bi ñaan ñu dakkal bépp transfert parce que fii ñu toll si xeex bi waruñu jël benn risque boo xamante ne dana indil ñi xamante ne ñooy xeex yeneen problème yoo xamante ne day dégg dayo bon nag transfer u corps boobu comité yi ñu ngi demander à que ñu bañ ko autoriser benn yoon ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi leen di jox pour que ñu mën a daan Covid 19 bi génne ko suñu réew génne ko effectivement ci Afrique génne ko ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di remercier bu baax.